mais ce sera pour ceci et ceci et cela mu ne bu soobee yàlla noonu laa koy defee te boobu ba léegi saa su ma bëggee dara ci moom su ma ko nee léegi léegi moom mag foofu mun na nekk sama baay waaye lu ma ko wax mu defee ko moom c'est un homme de mission ma seedeel ko ko noonee laa koy seedeelee docteur Cheikh Tidiane Dièye bi nga xam ne candidat la moom it démb rek maa ngi koy seetaan ci temps d'antenne gannaaw bi ma seetaanee bàyyi bi ak tagal bi dafa mu dem dañ leen da fay jiital son premier temps d'antenne dafa régler problème mu temps nu Diomaye Faye nii kon di leen félicité bu baax ci loolu waaye di wax ni mënoon na tombe ci kenn ku ne Aïda Mbodj nii mënoon na nekk candidate grâce su ko neexoon mu jël fiche keneen ak keneen mais tombé na ci joomaay dama ko tànn nag wax naa ne ko ci vidéo dama koy tànn yàgg na te naa li tax ma tànn ko ma gëm ni Sonko mooy joomaay lu waxantu du waxantu waaye joomaay mooy Sonko du waxantu bi ñu mujjee waxtaan avant dernière fois bi parce que démb it ñoo ne woon ba nogoonoo ci la colonel bi ñëw nañu da ngeen di génn ko saa yi dama defari sa bagage da nga defar sa sikkim dina <laughs> alors bi ñuy mujjee waxtaan dañu toog waxtaan lu yàgg ñiy waxtaan ci yi nga xam ne mi ngi am te nit ñi yaakaar ni mun na andi féewaloo am solo mu ne ma président wallaahi politique su waroon sama diggante ak yow ma arrêté que damaa yëkkati doom tuddee ko te damaa bëgg doom boobu dama bëgg doom boobu ilaa yow koy jox comme exemple kon suñu politique naroon boole ma bi dama xam ni dëgg la ci moom ñaareel bi mooy nit ñaa ne Diomaye comme bëriwul wax bi man nag Diomaye su ñëwee ñii soo ko sax moo tane ci ñoom war nga tiital na waaye ma ma bëgg a seede ni Diomaye gën a nooy fuuf si ñoom ndax sama reetaan bu gën gii li mu nekk ci gannaaw ñi ma xam-xam nañ Diomaye dañuy waxtaan benn jour maag moom ak Birame Souleye sama kër boobu affaire yi tar na métti na ma ne ñii di bu ñu jëlee affaire bi Diomaye dama tegal ci suuf président loolu kenn du ko fi def fii amul chasse à la sorcière amul euh, fayantu amul et cetera keroog ma leen andi leen ma joomaay mu ñëw ñu waxtaan waxtaan quatre heures de koy gunge ba ci bunt bi ma ne xaaral ma seetlu woon ma ko joomaay ñii il faut lii dafa yomb quoi ñii il faut ñu def nii mu ne ma mukk ci àdduna président mukk ci àdduna bu ñu def erreur yi ñu def ñu. waaye ñi ma ñetti muy lu ma bëgg a yokk ci seede ci sama digganteeg moom waaye di wax askan wi tànnuma ci hasard ndax dafa di sama rakk di sama xarit ñu ànd lu yàgg ma xam li ma xam ci moom nee naa ko Diomaye nit ñaa ngi ñëw di wax rek limité télévisé mu ne ma président man dama am kersa ci nit du ñëw di wax ma ne ko di ma la déglu waaye ku mën a dugg sama nopp bi ba wëlbati sama xel gisagu ko loolu ci mbindam la bi may daaneele nag gannaaw bu ma dénkaatee sénégal yi Diomaye Diomaye jëmmam amul solo sama bos amul solo donte dañ naan élection présidentielle waaye projet la ñu wax ak Sénégalais yi am na ay aspects ci suñu programme boo xam ne nit ñaa ci bëgg a profité wax ji bëri moom dina ci leeral waaye dina doog a daaneel njëkk mooy nee naa ko président Diomaye mbirum vice président heureusement bu ñu nee sax lu ñu war a fal la donc du pour élection bi dugal nañ ko ci xalaat bi di ko xalaat waaye ñaari choix la ñu boo gisee xalaat yooyu am mooy président présidentialisme bi am ba pare lépp nekk ci loxo benn nit moo tax ki jiite réew mi fi ne nii sonn na boobu sonn yow ñu ne ci biir pouvoir exécutif bi ci boppam war nañu mën a rééquilibrer les pouvoirs attributions te loolu mun nañ ko am sans poste premier ministre sans poste vice président ndax boo jëlee réew mu mel ni France ba 2007 modèle bi dañu amoon. à partir de 2007 dañu def seen réforme mais c'est gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation alors dañu resté ci c'est le déterminant du gouvernement qui coordonne et moo tax soo déggee ay réformes coow yu bëri foofu premier ministre mooy dem ba charbon su paree bu yóbbu mu tàgg bagage kon ñaar mun na am soit ñu am vice président mais sans beaucoup de pouvoir parce que boo boolee ñaar ñoo fal jox leen ñu yem ay pouvoir bis bu ñu. déggoowul njàpp mu am moo tax États-Unis vice-président bi daanaka il est là la suppléance au cas où et selon la nature de ses relations le président mun na ko yokkal wala mu wàññil ko mais koo xam ne dafa am légitimité électorale mu tolloog président bi nga tolloo leen pouvoir mun na am problème wala nga am un premier ministre qui sera mais ñu wàññi ci pouvoir président jox ko moom pour rééquilibrer au sein de l'exécutif bu boobaa bu contentieux amee président bi choix yooyu la ñuy def gëm naa ni nag ci mandat bi probablement ak président Diomaye damay décider mais peut-être boobu moo gën a plausible ñaareel bi bëgg a daanele mooy mbirum koppar question franc CFA ce que je veux dire sur la question du franc CFA parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites Je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Nous pas eu, nous, la possibilité d'y travailler sérieusement, parce que vous savez que quand vous en détention, les conditions d'entrée et de sortie des sont très complexes. Et les dernières observations qui ont été formulées, même par le candidat, n'ont pas pu être intégrées sur cette problématique-là. Mais je veux dire simplement qu'il faut savoir comme une continuité. On n'a pas créé un nouveau programme. En on a pris position sur la question de la monnaie. D'abord, à travers le livre Solutions que j'ai présenté ici publiquement, mais ensuite dans le programme. Et notre démarche a été toujours de dire que nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement.

comme aspect du programme. Aujourd'hui, nous avons une monnaie dans le cadre de l'UOMA. Ça semble aller dans une certaine direction, mais ça va très lentement. Nous allons venir pour essayer de booster et aller vers les réformes qu'il faut. Mais nous avons toujours dit que notre option, c'était même la CDAO, qui fait un ensemble de plus de millions de kilomètres carrés, plus de millions d'habitants, donc un marché qui a un potentiel énorme, mais si les préalables sont réglés, et ces préalables ne le pas encore. Et c'est ça notre option de base. Et c'est seulement si on ne parvient pas à avoir ça que nous considérons pouvoir aller avec notre propre monde. Donc, c'est bien qu'un détenu a des, le programme a navigué une ou deux fois, mais on n'a pas pu, avant la présentation du programme, faire les dernières observations comme il le fallait. Et donc, il faut lire ce programme comme une continuité. Quand je demandais à l'équipe de démarrer le programme, je leur dit, travaillez sur la base ressentie de et essayez de voir s'il y a des actualisations à faire. C'est des précisions importantes parce que des gens en manque de programme et qui ne peuvent rien nous reprocher essaient de s'agripper sur cette question-là pour inquiéter le monde entier d'ailleurs parce qu'ils ne Et je tenais à faire ces petites précisions. Je m'excuse d'avoir été assez long. Euh, je ne vais pas faire la version française. Je laisse à, à candidat, le président Bassirou Diomaye Faye, le soin de clôturer cette conférence de presse. Je vous remercie. Monsieur le Président Ousmane Sonko. Euh, plus tarder, nous allons passer la parole à notre cher candidat et futur président dès le premier tour, Inch'Allah, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. su ko defee mu waxtaan ak askan wi ci koñ yi nga xam ne tënk na ko ñu mën a jàpp ne daanaka mooy première prise de parole officielle en tout cas après avoir été désigné comme candidat comme porte-étendard du projet pour un Sénégal souverain juste et prospère dans une Afrique en progrès monsieur le président vous avez la parole. Je voudrais, dans le siège des propos du président Ousmane Sonko, saluer les leaders et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, participent à cette rencontre d'échange entre le candidat que je suis et le leader Ousmane Sonko, qui est notre leader à nous tous. voudrais dans le même sillage m'incliner devant la mémoire des disparus et prier pour le repos de leur âme et pour la miséricorde d'Allah Tout-Puissant sur eux.